Bonjour chers internautes de Chronique TV c'est reparti ci une benen spécial promo tabaski ci s'est une émission Nous nga xamantene ne bëgg a sen jaay émission noo ñëwaat na Dañu ci and nak ak nga xamantene ay ngay ba ngay ci tu si waxale wu len ci biir ngeen bok. produit produits cosmétiques di ay maquillage ci ngeen bokk waaye onglerie yi duñ leen fàtte benn yoon ndax ñu ngi ci biir nee naa la vaisselle dafa am solo ci tabaski waaye ku ne tabaski ne xar nee naa la boo lakkee sa xar bu baax daa ko taaj ci plat yu rafet yu yaay dañu leen fekk fi ngeen nekk tourné tournéndoo ak yéen seen émission noo mëne yéen ñi bëgg a fësal seen i produit mbaa nga bëgg a fësal say xeetu baax baax yi nga xamante ne yaa ngi koy jaay ñëwal ci seen biir émission noo mëne bu ngeen wootee ci suñu service commercial ci 77